yaa latiifu yaa kariimu yaa jaliil haamil jamii'anaa bi lutfikal jamiil kii noo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci turu banqaas bu mag bi ñu duppee commission sociale commission sociale di leen ci banqaasu Touba ca kanam mi nga xam ne yittee askan wi rek a ko tax a jóg commission sociale bu Touba ca kanam ci diiru màggal gi ak léegi mbokk yi commission sociale dajana lu toll ci 14 millions cinq cent quatre vingt mille mbokk yi ngir lan ngir bàyyi xel ñii ma leen di wax nii ñu tabaxal leen ay barabu suturukaay mbokk yi ndax jekk na ndax jaadu na fi jamono toll. ñuy seetaan ay nit ñuy manqué bay manqué ay barabu suturukaay mbokk yi loolu jekkul jaaduwul te mën nañ cee indi saafara. nan lañ ci indee saafara nañu ànd ak commission sociale bu Touba ci kanam jàppale leen ñu saafara lii te lu mën a nekk la ndax kat wet di gis bokk ci mbokk yi diir bu gàtt ci la ñu dajale 14 millions 580 mille defar ci 37 barabu suturukaay waaw 37 fanweeri wanag ak juróom-ñaar mbokk yi loolu nag buñ doon xool ci limu doom aadama yi nga xam ne nii impact na leen toll nañ ci ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn 381 loolu nag ci diiru màggal gi rek la mbokk yi yàggul mën nañ wax ne ci diirub ñaar wala ñetti weer lay doon mbokk yi commission sociale jàmbaar yi nga xam ne nii rawatina diaspora bi rawatina soxna yi waxtu wu nekk ñoom it seen kéem kàttan ñu ngi koy def di jàpp ci commission sociale xam ne ku jàppale commission sociale jàppale nga néew ju doole ku jàppale commission sociale jàppale nga ñi yitte woon dimbal ku jàppale commission sociale jàppale nga ñi tawat te ragal dem hôpital ndax amuñu lu ñu jëndee ordonnance mbokk yi Serigne Touba c'est l'homme le plus social de la planète mbokk yi xettali doomu aadama yi ak taxaw doom aadama rek ko tax a jóg commission sociale bu tubaa ca kanam ci njiital Serigne Mourtada moom Serigne Abdoul Fattah mu Serigne Fallilou loolu rek mooy ay yitteem ak jàmbaar yi nga xam ne ñoom la àndal ak jàmbar yi nga xam ne nii ñoo nekk à travers le pays waaye jàmbar yi nga xam ne ñoo nekk à travers le monde picc nga ca kaw waaye xel maa ngi ci suuf yéen waa diaspora yi di góor di jigéen yéen ngi bàyyi xel lool commission sociale bu Touba ca kanam yéen a ngi bàyyi xel lool bokk yi yayoo dimbal te nekk ci dëkk bii nga xam ne nii wuy si ku tedd ki rek a leen fi indi kon ku leen taxaw rek sëriñ bi nga leen taxawul lu leen waaye defal rek sëriñ bi nga ko defalal kon jàppale leen commission sociale bu Touba ca kanam ñu jàppale ñii nga xam ne yayoo nañ dimbal jàppale commission sociale bu Touba ca kanam mooy nekk ci dëgg-dëgg yittey sëriñ bi commission sociale nag képp ku ci bëgg a jàpp numéro yaa ngi nii yoon yaa ngi nii mbokk yi ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér di sant mbooleem koo xam ne nii nag waxtu nekk muñ la fëggee muy gudd muy bëccëg yaa ngi leen di jàppale waaye di leen sant di leen ñaanal di leen gën a soññ di tàllal loxo ñi nga xam ne tàbbee guñ ci liggéey bu rëy bi mbokk yi commission sociale la ngi leen di tàllal loxo yaa latifu yaa karimu yaa jalil haamil jamiana bilurfikal jamil